mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi aman mbégte ñëw di àndaat ak yéen ci seen émission démbi réew mi leen ko baaxee defee fii ci Def Guiss TV ngeen ci ànd ak Mbaye Babacar Sène euh, macha allahu rabbi ñu ciy waxtaanee mbaax gi fi woon démb ak barki démb maam yoroon ko mu nekkoon kenn dëgër bi nga xam ne moo taw woon réew mi di ko joow ci géeju njub jëm moom ci dëkku teranga ba tax tey ñu naan senegal réewum teranga mbaax googu ci sunu wàllu mboor mbaax googu ci sunu wàllu mbatin mbaax googu nga xam ne mooy sunu cosaan waaye baax googu nga xamante ni mooy sunu baaxi maam macha allahu rabbi fii ci Def gis TV ngeen ko fi am jamono ju nekk ak Mbaye Babacar Sène mbokk yi xam ngeen ne sunu maam yu baax yi sunu réew mi nga xam ne moo di senegal jaloore yàgg na fi waaye sunu réew mi di Sénégal ku ne xam na ne réew mu am manoore la waaye réew la moo xamante ne nii li nga xamante ni moom moo di sunu ndam yaatu na gis ngeen jamono ji ñu génn Euh, ndam lu rëy li nga xam ne réew mi am na ko ci wàllu coupe d'Afrique bi nga xam ne lu lu ëpp juróom-benn fukki at moo ngi koy topp di ko wit waaye li wolof di léeb rek ne lu jiwu wa jeexu rek jógu fa nga gis sunu gaynde yi macha allahu rabbi jom ji nga xamante ni doon nañ ko ci sunu maam yu baax yi fi nekkoon koo jël ci équipe bi rek boo xoolee aw santam boo xoolee aw turam mbànjaaxaan nga ngay dellu ci maam yu baax yi fi nekkoon moo xam ci ngar mi la moo xam ci cëriñ la senegal yàgg lool ci jaloore xam ngeen ne bi nga xamante ni guerre bi taxaw na ci diggante tubaab yi ak almaañ yi tubaab yi demoon ba jëmmi jamono ñu jaaxle lool ci 14 18 kenn ci sunuy maam moom la tubaab yi yaakaaroon jël ko def ko muy commissaire bi nga xamante ni moo waroon a jël si ay nit ay jàmbaar fii ci réew mi muy sunu maam ju baax joojule di Blaise Diagne nga xamante ne ni moom lañ waxtaanal mu ñëw ci réew mi mu ñëwee ci réew mi dem ci kër sëriñ si dem ci kër garmi dem ci kër jàmbaar yi ku ne xam na ne euh, Seydi El Hadji Malick joxe woon na taawam boobu nga xamante ni moo di Ahmed Sy waaye cheikhul maam sunu maam cheikhul Khadim joxe woon taawam boobu nga xam ne moo di moo Serigne mu Moustapha te maam Cheikh Yaba Diop euh, téye ca kaki ba ne ko baal ma dem sangale ma ma rafaatal la jomb naa buntu fetal te regg naa am tan ku ne xam ne ne maam Cheikh Yaba Diop gis nga moo demaloon sëñ mu Moustapha Seexul Xaddim ne leen ku ci dem boo ñëwee moo di sag ceex waaye boo fa desee moo di sag texe gis nga sëñ ki nga xamante ni moo di maam Cheikh Rama joxe woon taawam ba sëñ Fallou waaye gis nga maam bu kunta ñëpp nga xamante ni nekkoon nañ ci réew mi kenn ku ne ñii seeni doom ñii seeni taalib ñii seeni bokk ñëpp dem njàmbaar gu nga xamante ni moom lañ nàmpe fii ci réew mi ay njàmbaar goo nga xam ne moom lan donn fii ci réew mi moom la ñu dem yóbbu ko ca tubaab ya ba mujjee leen jiiñ jiñ wuññi leen loolu bokk na ci li nga xam ne moo jox tubaab yi seen seen péexte ay gis nga keroog bi nga xamante ni ñibbisi nañ lañ leen fayee foofu nga xamante ni moom moo di caaroy 44 44 ñaare nga dégg ko muy way woo xamante ni euh, dootul fay ginnaaw boo xam ne lebal nañ leen ker ñu fayee ñu aw naaj waaye loolu lépp li muy wund rek mooy jom ak njàmbaar ak ngarmi gi nga xamante ni moom la réew mi baaxoo ci sunuy maam ci sunuy mamaat ba ci tey jii ku ne xam na ne dégg ngeen Lat Joor la Latiir héros national ku ne dégg nga Alburi Biram Penda Njéemé Baka Kodu Biige Biram Penda Farimata Ndimo Dora Beba bi nu waxtaanee woon bee paase waaye ku ne dégg na Samba be Fall mi daanoo ci gaar bi ci Tiwaawan waaye ku ne dégg na ma koddu koddu juuf mi nga xamante ni moo doxoon diggante tubaab yi ak réew mi ne leen gandu tabax waaye ku ne xam ne buur seen Kumba Ndoofeen Famak mi nga xamante ne ni euh, jaloorem siiw na waaye Fandeb buur seen Kumba Ndoofeen Fandeb mi nga xam ne moo taxawoon ci diggante tubaab bi Seexul Xaddim teg mantoom garanti ko nga gis maam yooyu Aline Sitoé Diatta ndax jigéen ñi kenn demul ñu des Aline Sitoé Diatta keroog bi mu jógee ndakaaru gii dem foofu nga xamante ni moo di Casamance ngir taxaw aw ñoñam ku ne xam na euh, Ngoné latiir mu mag ma Ngoné Latyr ma nga xamante ni moo soloon yërey baay ba daan ne bàyyam bàyyi ma ma jàkkaarloog buur trasa daan koy wëññi ñëw dindi mbaxana ma rase yi lang ñu ne góor baax na jigéen baax na nga gis senegal njàmbar googu ak jom jooju nga xamante nii moom la ñu xam euh, njàmbaar googu nag nga gis ni mu feeñee ci sunu gaynde yi ñu dond ko ba keroog bi nga xamante ni daje nañu ak ki nga xamante ni moom moo di Tunisie ñu am ci moom ndam lu rëy loolu nga xamante ni yàgg nañ koo xëcc ci réew mi lu toll ci juróom benn fukki at ak ñeent ba ci dimanche boobu ci 7 février euh, sunu gaynde yu jàmbaare yooyu nga xamante ni dañ koo donn ci seen i maam ndax la ca maam sëta koy jël ba yomal am te deret du fen boroom rek a koy wor te butéel bu ne lam def la saañ bay xeeñ keroog nu indil ndam lu rëy loolu senegal réew mi yëpp bég ñëpp kontaan ngir njàmbaar gu rëy googu nga xamante ni euh, sunu gaynde yi def nañ ko waaye jaloore ju rëy jooju nga xamante ni euh, euh, def nañ ko waaye tamit ñu am manoore manoore joo xamante ni Euh, dootul yi ba keroog àddina di jeex ñoom do jël li nga xamante ni moom moo di seen tur waaye jël li nga xamante ni mooy seen njàmbaar daal di koy bind nag ci mboorum réew mi nga xam ne ba keroog àddina di jeex euh, doon na loo xamante ni dañ koy daal di yokk ci mbind mi ñuy bind mboorum réewum senegal ne at sàngam bu demee ba ca ay at yu sori ca kanam yàlla na nu fi fekk ñun ñëpp ci barke yonent bi saa yu ñuy waxtaanee ti mboorum réew mi rawatina jëmale ko ci wàllu coupé coupé tànk dina ne euh, daal euh, maas gi ñoo fi njëkk indi coupe d'Afrique ci réew mi kon Sénégal ngi noonu réew la moo xam ne euh, réewum njàmbaar la réew la moo xam ne réewum jom la réew la moo xam ne réewum ngarmi la moo tax réew la mu jomba ñaaw képp koo xam ne nekk nga fi rek di def lu defuwul maa ngay def loo xam ne safaan la maa nga nekk nit koo xamante ni euh, la nga waroon a am ci jom xëy na am na lu ciy des waaye sa njàmbaar fa mu waroon a toll xëy na am na lu ciy des rek euh, demal nga xoolaat sa bopp nga gëstuwaat say maam nga gëstuwaat sa réew xam ne réew mii nu ne di réewum Sénégal ku fi nekk rek sa jom dafa war a yaatu sa ngor dafa war a landi waaye sa njàmbaar dafa war a nekk loo xam ne lu dëgër la war a doon doo nekk mukk ci àddina koo xam ne da ngay yonjox wala ngay des ci ginnaaw wala ngay nekk nit koo xamante ni nit la ku nuy xeeb mbaa ku nuy doya dal bokkul ci ñun bokkul ci réewum senegal kon mbir maa ngi noonu réew maa ngi noonu Sénégal gi noonu jom yàgg na fi njàmbaar yàgg na fi kon képp ku fi nekk rek di tiitaroo say maam ci maam yi fi nekkoon démb ak bërki démb war nga nekk nit koo xam ne nit ku fees dell ak jom ngay doon waaye nit ku gore lool ngay doon waaye nit ku bari jàmbaar ngay doon waaye nit koo xamante ni dangay bëgg ndam waaye nit koo xam ne da bëgg def di di bëgg di def jaloore waaye nit koo xamante ni da ngay bëgg am manoore ci sa dund ngir sa way dootul fay ndax maam yi nga xamante ni ñoom la ñuy tiitaroo seen way dootul fay ba keroog àddina di jeex li leen ko mayoon mooy seen jikko yu rafet seen jom seen jàmbaar seen diine seen ngarmi te yooyu yëpp mu ngi fi jeexagul te du jeex ba këru àddina di jeex ndax mbaax du ràpp kon mbokk yi euh, teg leen foofu seen baaram ñu leen di dig daje ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen beneen émission euh, démbi réew mi fii ci la chaîne Def gis di nuyu xarit yi ak soppe yi bu baax a baax di nuyu sama xarit sama jigéen soxna Jaynaba Jaynaba boobu bi nga xamante ne nii sama xarit la bëgg ma lool nekk foofu ci plan jaxaay nekk artiste bu mag euh, di joué ci troupe Libidor nekk fa actrice principal ci seen série bu rëy boobu lay nga xamante ni moom moo di euh, déception ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla defal ko ci ndam defal ko waa troupe bi yëpp di nuyu baax Cheikh Bara Ndiaye borom.